yàlla def accident bi metti lool ndax euh, camion bu toll nii bu dalee ci oto bu toll nii xam nga euh, dégâts yi dafay bëri te ñoom ñu ngi nekkoon seen yoon di dem waaye camion bi jógee booru Kédougou mu ñàkkee pënam pneu avant bi dafa dal di jarape moom ñëw ci yoon wi nga xam ne mooy yoon ñoom bi ñu newoon dal di dal seen kaw dal bu metti ba tax ñetti nit ñàkk seen bakkan ci saa si mooy boor bi nga xam ne euh, ñooñu ñoo daje camion bi mu am ñaar ñu si blessé ñaar ñooñu tam ñu évacué nañ leen Tamba pour indil leen euh, euh, assistance bi ci waar ñuy jaale mbokk ñu nga xam ne ñoo fi jógee euh, di jaale groupe Leral Dame Dieng ak ñu moo bokk liggéey woo naa ko sax waaye boobu moom daanaka ci jooy la nekk tellement choc bi dafa métti woon ci moom metti it ci réew mi ci ci si ñun ñi ñëpp ndax ay parce que taskatu xibaar surtout leer na ma ne ay jeunes lañu ndax euh, seen génération la suñu nekkee si liggéey euh, ñàkkee si seen bakkan ni lu lu tiis la ma tax mënu romb tam te duñu taxaw xool waaye maa ngi koy jaale seen i mbokk te dinañu fexe itam lépp luy en tout cas taxawaay bi ci war ñu def ko di fexe itam ñi nga xam ne ñoom ñu ngi nekk ay blessé jël nañ leen en charge pour que suñu borom may leen tawfeex lii tam dooy wone rek toujours yoon yi il faut que ñu continuer di def contrôle technique yi war si oto yi ci seen i pneu seen i euh, frein seeni i lampe euh, mais aussi di xool chauffeur yi parce que loolu yëpp léeg-léeg dina ñàkk maîtrise dina ko indi waaw te bakkan kenn mënu ko remplacer donc war nañu fonk bakkanu doomu aadama yi fexe ba vraiment képp ku yoro oto bu toll nii muy marchandise wala leneen war nga xam ne ñi ngay dajal donte oto yu ndaw lañu doomu aadama ñoo si nekk ñu bàyyi ci xel donc dinañu xoolaat encore une fois dañuy ñuy ak suñu mbokk chauffeurs yi mbokk transporteurs yi pour ñu yokk karange yoon wi karange chauffeur si ak oto yi afin que lu mel ni bañati fi am ñu ngi jaale journalistes yëpp ak ñu nekk ci euh, média yi Euh, vraiment di am tiis bu méttee métti nag ci bés bi euh, daanaka sax arrêté nañ lëpp li folklore ci étape bi nii ndax gis ngeen diggante Tamba ak fii daanaka bon amul benn yëngu-yëngu euh, bu ñu yeggee Kédougou tam noonu la. jot suñu vidéo nag foo wala si biir a xam ne dugal xam